paase sa maam nee na da ko daan tàpp ne da daan jël bant di ko tàpp nee am bëccëg boo xam ni séeréer si ne ci kër gi am ci ko indi benn dénk tëral ko nekke dénk bi daa am ginnaaw kër yi ginaar yu ci takk nee na moom it jotu ko seetlu mu wëlbati dénk bi jël yére bi teg ci jël tàpparka ji di tàpp nee na tàppa tàpp ba yeggal ne bi muy bëgg a yeggal bi muy bi muy bëgg a yeggal ci ko xale bi yaa xadi fi nga teg sa yére bi dafa am lu ci nekk te day taqal yére bi nee na li ko gën a yéem nag mooy bi mu yëkkatee yére bi yére sëñ Babacar Si bi taqul dara ci tâche te gis na li di ginaar gi defoon ci dénk bi mu taq ci dénk bi nee na mu lem yére bi beer ko ba yére ya pare mu teg ko ca yóbbul ko soxna asukan parce que ahmad sëñ kër daawul gis jigéen ku ni la dinaa dem ci yàlla tey laami soo ki jigéen di róofanteeg ñoom boo ko ñemee ne ko doo yegg ku ni la ëllëg ku ni fii laa egg ci yàlla te ko fekk mu nekk ci lu naqar yàlla soo ñemee nee ko li nee ko doo yegg ci yàlla Serigne Cheikh lii sëñ Babacar wax sànq Serigne Cheikh dafa wax ni yàlla su dekkalee jaam ñi loolu bi ko Serigne Cheikh di wax kenn nettali ma ko làmmiñam kaset bi mu ko doon waxee sama nopp laa ko doon dégloo moo wax ni man Cheikh Tidiane si nag lii ma leen di bëgg a wax waxewu ko bakkan yéen xam ngeen ni dépassé naa waxe bakkan ñu ne ko lu tax nga dépassé waxe bakkan Serigne Cheikh ni dootuma waxe bakkan ni mën naa leen a waatal ni su yàlla dekkalee jaam ñi kenn ku nekk dina am koo sagoo muy waaye yàlla dina am ku mu sagoo ahmad bu yàlla dekkalee jaam ñi yàlla sunu boroom day am ku muy sagoo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ni yàlla la nga ma waxoon fa mu tolloon lëndëm ga ca nekkoon ba tax nga ni ma nañ koy yeesalaat ka koy yeesalaat sama sëri dama boole la woon ak moom sama sët la yàlla ni ko sa sët boobu aka ma koo miin yonent yàlla muhammad ni ko xam nga ko waaye bisub tey man moustapha sama sët boobu laay tiitaroo ñu ni sët ba kan la mooy cheikhuna na chérif il fatimi bu keroogee moom mooy génn ak bijaaw bu jekk ba yonent yàlla muhammad ni kado bu may jox joxe wala tiitar bu may def maa ngi tiitaroo Cheikhuna Tidiane mi cheikh nag mooy wëlbatiku daal ni Moustapha liggéey ba yegg na waaye am na ku ca jàpp kan moo ca jàpp mu ni ko borom parasol balee ca jàpp Malick Fa Wade wele ma lee ca jàpp looloo tax Cheikh Alhaaji Malick waykat bi di la wax ni parasol bi mu yor du ragal tàngaay junj la ngir ëllëg sa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si nee nag am na caq wurus boo xam ni yàlla da koy décoré da koy jox yonent yàlla Muhammad Moustapha décoré ko cheikh mu ni bu keroogee yàlla ci boppam man sunu ma man sa man man sama borom bàyyi leen ma ma béggee ki ma war a ñu ni ko koy béggee ba bàyyi baal ma rek damay ratti wàcc rek bàyyi la nga yeggale ñu ni ko koy béggee anzalta ayatin karimati yawma yafirun ashiru min ashiratihi wa ummihi wa abi summa zawjati kulli imri'in sha'nuhu أبني ذا فذع غير رسولك مصباح الجنات ما للوسيلة في دنيا waaxirati li ngay wax dafa neex ki ngay tudd dafa neex man mi ngi koy tuddal yaa ma dàqal keneen ku koy tudd kon waxal. ana soppi Seex Seydi El Hadji Malick. maa ngi ñaan ñi ronu plateau bi ak ñi ci kër yi di seetaan ku bëgg sëñ Babacar Si jugal taxaw ñu màggal Cheikh Al Khalifa. wajhal xilaat tëjee cheikh wax naa la ni bu yàlla dekkalee jaam ñi sa turandoo nee na caqu wurus ba yàlla danaan takkal leen ma ko sama waa ji ñu ni ko kan mooy sa waa ji sunu borom ni yéen jaam ñi kan moo ma ci mësta mooy mu ni bu keroogee kenn yëkkati loxoom moom sëñ Babacar Si mooy wax ni man kër Si musuma mooy sunu borom yàlla ni am naa jaam bu ma mësta mooy caqu wurus bi moom laa koy décorer jël taq ba takkal ko sëriñ Babacar Si wax naa gars yi nag ni leen loolu sëñ Babacar waxoon man boog ci sama jamono kenn laa déggaat mu wax ko muy sëriñ Abdoul Aziz Al Amin عزيز فعبد العزيز ندب واسطة العقد ومفخرة الآباء والدين والجد باب Serigne Abdou Aziz zéro faute dund na ba dem kenn mënu ko dut baaraam Maodo si bu Alaaji Abdu moo ko waxoon ni ko yow Serigne Abdoul Aziz Al Amin bu fekkee kër Cheikh Alhaaji Malick caq la perub diggale ba yow Serigne Abdou la bu fekkee kër Cheikh Alhaaji Malick chaîne la ano yi roofante yow Al Amin la mi ngi ko doonne ci baayam Serigne Babacar Si man nettali la lu gàtt Ceerno Yaxya fii la nekkoon ñëpp xam nañ ko nitu yàlla piir la woon da daan wax moom moom Thierno Yaxya ni daan naa gis yont yàlla Muhammad ba kanamu yont yàlla Muhammad dama koy mën a nettali ñu laaj Thierno Yaxya nan ngay nettalee kanamu rasulillah yi mu ne yàlla am na 124000 monde 16 monde yi yàlla du ci def lu ma tàgguwul man Thierno Yaxya Thierno Yaxya moomu keroog bi Senghor di wut réew mi Lamine Gueye di wut réew mi dafa am ñu ko fay pour mu ñaanal Lamine Gueye Thierno Yaxya ñu waxtaan ak moom pour mu ñaanal Lamine Gueye Thierno Yaxya nettali ni bi ma tëjoo dugg xalwa pour ñaanal Lamine Gueye nee na ci laa jékki-jékki dégg benn riir buy ñëw Cerno Yaxya nee na ma si ma ni xiféet gis ku muuru ba daj naan ma bàyyil li ngay laal ndax ki ngay ñaanal du toog ci chaise bi Cerno Yaxya ne ma ne ko yaay kan ba may wax ki may ñaanal du toog ci chaise bi nee na mu ne ko ki ngay ñaanal feek xamoo turu biiram munoo koo ñaanal mu toog ci chaise bi ndax ki nga bëgg a dàq feek xamoo turu biiram munoo koo xañ lim bëgg a am Cerno Yaxya nee na jëmm ji naan ko est-ce que xam nga Senghor mi nga bëgg a xaj réew mi nan la tudd ne mu naan ko Senghor la tudd Léopold Sédar nee na jëmm ji ni ko tuddul noonu bat maan la tudd boo demee ca kaw turam looloo fa ne nee na mu ni ko yow la kan mu ni xuñat kaala ga muy Cheikh Seydi Aboubacar Sy bahar al ilmi wal xikami ami shariati hadina li xayri subul Serigne Babacar Sy ni ko Cerno Yahya bàyyil si ñaari chaise ñoo am ci àdduna benn ngi ci biir benn ngi ci biti ba ca biir nee naa ca déjj mañ sëñ Babacar Sy bi ci biti teg naa ci Senghor ma ma gis ku koy dindi looloo tax Senghor toog ba doyal dem waaye carte jëlewu ko fi ba ko ko sëñ Babacar waxee dani ko soo fi jugee bu fàllu boo yeggee wax ko li ma la wax ba mu yeggee sëñ fàllu ni ko moolu Babacar waxa mu ne ko Babacar nee na nangam ak nangam mu ne ko Senghor seng ca kaw waay looloo tax Senghor doog ba doyal ndax ñaar ñi ko teg ñaar ñi ko fi teg moo tax kenn nu ko fee jëlee Ahmad bëggoon naa la wax li sëñ Baba wax naa la sànq ni la Cheikh Al Khalifa Pape wax na wax na wax na baat boo xam ni jaaxal ñu bari te damay wax toujours ni nag ñam na ñetti prix waaye benn ba rek laay tànn mooy li sëñ Babacar wax ni yaa shaa'idan na kii ka kii fa kii ka kii ka kii ka kii bu la neexee yaa saabi yaa saabihan fi sabaxi wa saabihan fi baraki laa taxkiran na kii ka kii fa kii ka kii ka kii ka ka su la neexee ka góor ga daf ma wax ni ma sëñ Babacar Si daa am naar ga naar bu ko fekk fa mu toog moom Cheikh Al Khalifa nu yoon teeg moom ba yeggal sëñ Babacar Si jox ko gëdd waaye naar bi dafa xawoon xeet sëñ Babacar ci ay at ndax lan liñ ñu ko moo wuutu Maodo te am 37 ans mu ne gone gii daa mën a muutu ku toll ni Cheikh Al Hadji Malick man sama ijaasa duma ko ko wande te ku ma dajal nga am ijaasa dinaan la bu la Babacar joxee delloo ko ko nekke moom bi muy wër dëkk bi di doxal loolu sëñ Babacar woona ay mag jox leen ay dog ni leen ñaanal leen ko jàngalul dog yi buy dee di dem safara te mës naa werd benn peru salaatul fatiha te Cheikh Alhaaji Malick nee na benn peru salaatul fatiha njot la ci safara sëñ Babacar jox ñoom Serigne Aline Gueye ay dog ñu koy jàng ngir mu bañ a dem safara bi ñu laajee sëñ Babacar lu tax nga joxe dog yi dañu mënumaa tee mu dee ndax Cheikhuna Tidiane feeñu na ma te wax na ma ni balaa génn ñu jël malaaka mi jël bakkanam waaye safara laa koy dawal moo tax ma bëgg ngeen jàngal ko dog yi ñu jàngal ko dog yi mu ni ma naar booba nag la sëñ Babacar waxoon ni ko yaa shaidan fii shabaki وصابحا في برك لا تحقرن كي كي فكي كي كي كاكا أصبحت أصبحت